wax euh, ci euh, mën nañu ne euh, le temps de l'observation entre Barthélémy Diaz et le chef de l'État waaw c'est politique c'est pour cent politique voilà il paraît que moom da doon sàkku gisante ki nga xam ne moom mooy le président pour mm-hmm. ñu waxtaanee ci mbiru doxalinu mairie bu Dakar mm-hmm. waaw xam nga Barth mm-hmm. institution la yor waaw parce que ville de Dakar c'est une institution parce que mooy capitale au Sénégal te moom opportunité yi mu am beneen maire am ko. mooy am ay euh, déjà budget amul benn budget bu toll ni mu toll moom c'est des milliards. ensuite euh, isal nawul ay cinquante et quelques milliards sax. ensuite mën nay recevoir ay institutions telles que ay ambassadeurs. Euh, yeneen i réew. Mhm. tel que aussi euh, ay ay ministres pourquoi pas même yoo xam ne dañu jógee bitim réew ñëw directement au lieu ñu rencontrer le premier ministre ou le président de la république mais moom recevoir ko mën nay def ay signature de contrat ci ay euh, mbir yu am am am solo. Mhm. donc su ma naree fàtte point bi nga fàttali ma ko dégg nga. usurpation carte d'identité yi dinañ ci mhm. ñëw. du ko daan comprendre. waaw parce que dañu ne sénégalais yu bari seen i carte d'identité fi to toll nii ay turu pël ci nekk. Hmm? ci ñëw léegi ay étranger Barthélémy Diaz booy xool euh, tey bokkut ak camp politique ñi nga xam ne ne ci nguur gi journal bi nee na booy booy seetlu sax depuis 2009. ci Sénégal capitalu capital bi ki koy gérer day xaw a woroo ci wàllu politique ak ñi nekk ci nguur gi mooy tax day difficile pour mu réaliser yenn projet yi. contrairement ak jamono bi nga xamante ne nii c'est le président de la république euh, pouvoir bi nga xamante ñoom ñoo ñoom ñooy doxal seen seen seen seen seen responsable mooy gérer en même temps la capitale donc dafay yomb trop pour ñu liggéey bi Dias nag sàkku woon na gisee ak ministre bi premier ministre ak le président de la république président de la république sax le saisir ba ma lay tooñ fii naan la est-ce que président duna ko damaa xaw occupé est-ce que doo gisee <laughs> ko su boobaa loolu tam beneen lay doon le journal le temps de l'observation c'est-à-dire que. jomaay mm-hmm. maanaam léewtoo daal léeto moo am jomaay mu ngi toog di xool fan la barte di mujjee Barth tamit mu ngi toog di xool fan la jomaay di ah, mujjee te kenn ku ci nekk soxla nga sa morom il faut que am ku def premier pas donte Barth def na premier pas parce que euh, deful weesuwul nga def sa conseil euh, euh, comment dire sa réunion ba noppi def sa déclaration officielle ne maa ngi sàkku ci président de la république ñu toog waxtaan ndax am na projet yu bëri dafa war a dox te moom faaw mu jàpp ci. Mhm. ndax ville de Dakar nag institution la te wax dëgg yàlla bu ci président jàppul tam yooyu du mën a nekk. en même temps dafa am ay enjeux comme lu mel ne olympique de la jeunesse bi nga xam ne war fii lañ koy organiser Sénégal. Mhm. te Dakar moo koy recevoir. te loolu euh, état bu Sénégal dafa force mu dugal ci loxoom te comme que Dakar koy recevoir mairie bi même bu ñu ko recevoir woon Kaolack. Mhm. maire ba ci boppam moo koy mooy organiser yëf collaboré wu ak ville Dakar pour ñu mën a organiser loolu mu jaar yoon bu ko defee suñu nawle yi bu ñu ñëwee du ñu am problème logement du ñu am problème benn problème équipement et autres. Euh, dogguma la. Hmm. Mor bu fekkee da ngay nalaw nga wax ñu ndax sa titre bi changé woo ko. ba tay ba pare euh, am na beneen aussi farata boo xamante ne nii war na tax. Mhm. Euh, président de la république tontu li bi Dias ci sollicitation bi mu ko def. Mhm. mooy. projet yi nga xamante ni moo concerné projet de voirie yu euh, ville de Dakar donc euh, yu ci bëri bu jekkee tamit Sénégal moo jekk ñu ne kon donc war na tax président de la République wuy si Barthélémy Dias ci woo gim ko woo mhm. autonomisation aussi édifice public yi en énergie verte te mooy euh, Dakar mbedd yi naat hmm, am ay décoration yu rafet ci ay ay ay garab yu ñuy defar rek mhm. voilà donc yaañal ko ba mu yaaññi yooyu tamit fa si état tamit autoriser ko par force préfet autorisé ko par force aussi euh, projet bi état dugal ci loxoom pour que euh, mu mën a jaar yoon de ko que aussi euh, projet bi nga xamante ne nii moo concerné Euh, chantier euh, chantier yu mag yi nga xam ne ville de Dakar am na ko ci ville ci euh, dëkk bi pour mu mat il faut que mu am autorisation wu état il faut que mu liggéey ak état ndax yenn moyens yi état moo leen koy jox en disposition pour que ñoom ñu mën koo def am na benn point boo xamante ne nii c'est intéressant boo xam ne loolu tam Barthélémy Diaz toog ak président de la République mën na am président def ci dugal ci loxoom mooy condamnation bi nga xam ne tegoon nañ ko ci ndoddam concerné mbiru Ndiaga Diouf yi euh, président Diomaye Faye mën na am lu mu ci am waaye nag waa Benno Bokk Yaakaar am na lu ñu wax waa APR <laughs> waaw ah, APR nee nañu <laughs> Diomaye mooy Sonko Sonkoy Diomaye ñoom loolu la ñu wax nee nañu tamit toll nii hmm. Diomaye euh, lépp lu muy décidé hmm. presque ci ndigalu Sonko la koy décidé kon nag ku jubóowut ak Sonko est-ce que tamit da nga jubóog Jomaay wala boog Jomaay dana la defal la nga bëgg loolu tamit ça reste une question moo tax euh, ci condamnation bi nga xamante ni ça concerne affaire Ndiaga Diouf mm. journal bi neena na euh, bu toogee ak président de la république du ñàkk sujet boobu ñu yëkkati ko ci te peut-être président de la république mën na ci am ay solution loolu aussi euh, journal bi indi na ko ba tax na mu poser une question que va décider le président de la république Bassirou Diomaye Faye concernant tous ces projets et sollicitations du pré du maire de la ville Euh, de Dakar Barthélémy Diaz en tout cas euh, ki nga xam ne mooy Pathé Mbengue nee na moom euh, mm-hmm. nous attendons une franche collaboration avec l'État central loolu moo mën a nekk sinon kenn du am maanaam état bu Sénégal bu bëggee def ville de Dakar xanaa dina bu bëggee dara def Dakar xanaa dina informer la ville de Dakar. Mm-hmm. ville de Dakar aussi bu bëggee réaliser dara xanaa dina yëgal état bu Sénégal donc xëccoo boobu jaru ko te 2025 4 avril dafa war a am fête 4 avril. te Barth da ko war a dafa war a recevoir le président de la république donc diggante bi bu jàmm amee ça mm-hmm. day gën a neex rek bu jàmm amul nag yaakaar naa dina am ku toog am ku dem te <laughs> tam assemblée nationale moo ngi ñëw waaw soxla nañ ci tam waaw li war a ñëw bëri te foofu yëpp climat bi dañ ko soxla apaisé yaa ngi dégg Abbas Fall am na lu mu ciy junj mm-hmm. donc lii mooy la situation en tout cas au niveau de la ville de Dakar les sollicitations de Barth envers le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar